sëriñ tubaa xaadallahu allahu maxtaaloo nee na bu ñu demee ba ca kanam te gisatu leen ma te yéen di ma wut te bëgg maa gis xam ngeen fu ngeen may wute ñu ni ko déedéet sëriñ tubaa xaadallahu allahu maxtaarloo ni wut leen ma ci xasida yi wér na fa man araada alxurba min mawlaahu falyaqra il qur'aana laa yansaahu alquraan waxi yàlla moo tax sëriñ bi ni ku koy jàng da ngay jige yàlla subhanahu wa taala naka noonu ay xasidaam ku leen di jàng da lay jige lool ba man di wax ak yow su ko defee war na ñoo xam ne dara soriwul boo jaaree ci yoon wax wallahu aalam